su ko jëloon ma kay rek ma kay rek bu ñu mbiri njaay bu ñu mbiri njaay joxal ci boppam njaay am faxa bu ñu mbiri waas kon naa nay borom ba jaay ko di dama gar saaje ñaani waaw xam tag lam ne ana meeri ñii bi ana meeri ñii dama bëgg nga dugg bëgg ko di jaay sama am jaay wuyul wuyul nak moom na bi ci alab jaaxeer bi naa ca bàyyi wal jooju mi ngi ci ci xaar dugg di foo des njoof nañ baax gi naa la yéen a ko wax moo waral mbaboor mi Ablaye Sidi Sow moo waraloon mbaboor mi démb moo ko waral tey ndax ñun démb fi la fekk tey fi la fekk xam neen démbam xam teyam waaye di nuyu responsable yi ci département Kaffrine bi yëpp nag góor jigéen mag ndaw ndax bu ñu limee dañuy juum di nuyu waa région yëpp ci turu maire département Koungheul ndax Koungheul yaakaar naa ne samedi bii passé honorable député Yaya Sow dafoon na lu mel nii macha allah kon bu ñu ñëwaatee fii ci Kaffrine Abdoulaye Sidi Sow invité fii ak ay nattangoom dañ mën a taxaw fii wax ñuy jottali message ci département bi. ñi ñu fi lim waaw micro bi. am leen honorable Mohamed Dieng dafa am tardement. parti ak meeru Fass Cekkeen. waaye ngeen xam ne ñun fu kenn teew rek ah. ñëpp teew nen li war a mbaboor mi nag mooy président de la république monsieur président Macky Sall président Macky Sall yaakaar naa ne ñun ni ma ko faral di waxee ñun waa àll bi. ñun ñi ñuy tuddee àll bi li ñu président Macky Sall defoon gis nañu président Macky Sall li mu ñu defal ñun gis nañu kon bu ñu taxawee fii tey di jublu ci programme li ñuy wax élection jëm 2019 président Macky Sall taalal ñu loxo yaakaar naa ne ñun waa àll bi su fekkee ne rek wala lebal bëccëg nga fay ko guddi ñun président ko ndax li may wax boo demee ci àll bi jigéen ñi man neen waa séeré président Macky Sall moo damb kuur yi moo nooyal loxo yi ndax li tax ma ne moo damb kuur yi moo nooyal loxo yi waaye moo fay lampe pétrole yi président Macky Sall li mu ñu defal yaa xam naa dëkk boo dem ci département bi wala ci région bi wala ci Sénégal tout dañ ko gis machine mboj bi gis fa machine soq gis machine wal yaa xam naa loolu moo sonaloon jigéen boo gisee ma waxaat ne tey Dakar la Senghor waxoon pare ngi ci poos waaye tey Sénégal ñun amatuñu waa àll wala waa taax ndax dëkk boo dem ñu ngi seetaan télévision nu leen neexee di añee ceebu jën nu leen neexee te yàlla président Macky Sall ndax moo fi def yoon yi moo fi def courant bi kon kooku demal ci nit ñi soo amee nangami signature soo ñëwee nekk candidat nga sa bopp loo koy coow waru ci am moo rom bu kon ñu bàyyi xel loolu xam ne bu ñu kenn nax bu ñu kenn xoxatal digg bëccëg leneen dox doxuñ guddi doxuñ lëndal ku ñu ñëw ne la kaay signé ma fii te duwut ñii ngeen gis fii tey ci kaw mooy Abdoulaye Sidi Sow Yaya Sow ak ñeneen ñeneen maire département bi ak yeneen responsable yi ngeen fi tudd ku ngeen signal keneen lu mu leen war a wax sànni ngeen seen signature te nag def ca ba mu war a def wax ca ba nga war a wax kon nan fas yéene jàppale président de la république di sant nag ñun département bi ak région bi Yaya Sow mënuñ ko ñàkkee sant fii ndax wolof Njaay dafa am na mu wax tey sant Yaya mooy sant suñ bopp waaye ku ko def ku ko wax la bëgg moo ko def dañ ko wax ndax mooy seul député boo xam ne bii taxaw na ci département yëpp taxaw ci région yi kon su fekkee mu ngi lëkkaloon Abdoulaye Seydi Sow ak yeneen maire yi nga xam ne yi ñu ngi ci région bi maire yi ngeen xam yiñ tudd yiñ tudd yëpp ñu ànd nekk benn takkoo war a jàppale suñu askan te askan bi rek ñor leen kon ñooñu suñuy wootee pour jàppale président de la république am naa yaakaar ne yéen waa Kaffrine yéen waa département Kaffrine yéen de yàqu leen ndax lii teew fii lu néew wane te yéen da ngeen wane ngeen président Macky Sall bilan am toog di ko def yomb na lan lañ war a def ñun dañu war a vulgariser actuellement li nga xam ne moom la réaliser au niveau du Sénégal ñi fàttu woon seen fàtt-fàtt dañ ñu mu ko gis ñi xamul woon mu a xam ku toog xool Sénégal 2012 nga xool ko tey ñu ne Sénégal avancé wul ñu ngi lay nax da bëgg nga reculer waaye bëgg nga avancé kon lan lañ war a def ñun militants yi nen ànd nekk benn ku ñu mun a xëcc nga ñëw ñu xëcc la nga ñëw ñu mën a yaatal le maximum possible bokk nag ànd bokk ndey bokk bàyyi liggéey pour massifier d'abord l'APR bi nga xam ne ñun tey mooy suñ porte mooy suñ clé clé balaa nga dem ci feneen di jéem a góorgóorlu suñu ko defee dina mën a yomb son excellence le président Macky Sall dafa nekk une référence nekk na une référence je ne parle même au niveau de l'Afrique mais au niveau mondial de par ses réalisations engagement am ak position nit ki lu mu def nga won ko ko dafa nekk gis ñu ne Sénégal avancé wul mu jël état mu jël Sénégal en 2012 lan la njëkkee baisse de la fiscalité ñu njëkkee ñu teg ci lan ñu yokk salaire yi nga teg ci lan ñu dem ci pension yi nga teg ci lan ñu ñëw ci denrée alimentaire yi ba stabiliser ko nga teg ci lan ñu indi la couverture maladie universelle nga teg ci lan ñu ñëw ci bourse yi nga teg ci lan ñu dugal ci projet yi comme le PACASEN comme le PUMA comme tant d'autres dugg ci pôle Diamniadio dugg ci AIBD actuellement infrastructure routière ñu ne président liggéey lan lañ bëggoon mu liggéey a nax ñu li président de la république def ab lu ndaw def na ko tàmbali na ko ci benn ba fam mën a yem kon di delsi ku ne président liggéeyul sa bopp ngay nax waaye président li mu def ku ne gis na ko leneen li ci des mooy sant ak gërëm te xam ne ñun leen rek moo ñu fi dajale mooy wax ci parrainage bi parrainage bi mooy lan ñun président dafa soxla ay nit ñoo xam ne ñoo koy parrainer pour que bu amee korom bu atteindre objectif am ci loolu mun a nekk candidat mun a déposer candidature te loolu yaakaar nañ ne Kaffrine rek buñ soxla woon Kaffrine rek Kaffrine mun na ko def waxuma laa nag Sénégal yëpp kon yaakaar naa ne loolu ñun duñ ci tardé duñ ci sonn parce que dina yomb te dina gaaw leneen li ñuy wax rek mooy kenn bañ leen nax di ñëw seen kër guddi naan leen dama leen defal ay projet damay ñëw fii dugal leen fii pour génne leen ay financement ba ngeen jox ko seen carte d'identité mu signaloo leen te xamu leen li ngeen signé lu mu doon yaakaar naa ne bari na ñu koy tàmbalee def te foog naa ne mat ngeen mat goo xam ne kenn mënu leen a nax kenn mënul jël seen carte d'identité ci caaxaan bu leen kenn nax bu leen kenn caaxaan loo jàppale leen président de la république parrainé leen président de la république monsieur Macky Sall. pour que candidature am mën a jàll pour que mu mun a gagné élection yi ñëw au premier tour parce que deuxième tour kenn soxlawu ko premier tour a tax ñuy wax kon nañ ko parrainé jàppale ko dox ci wax ci ba xale yi góor ñi jigéen ñi mag ñi ñëpp politigal ko jàppale ko ba mu gagné au premier tour parce que mooy intérêt Sénégal mooy suñu intérêt ñun ñëpp parce que tàmbali na fi lu bari loo xam ne deuxième tour rek mooy mun a tax mu mat mu àggale ko kon nag nañ ko jàppale ne serait-ce que pour ça ñu jàppale ko pour que au deuxième tour mu àggale projet yi mu tàmbali xalaat yi mu au mandat je veux dire pour deuxième mandat tax may wax donc pour que mu am deuxième mandat projet yi mu tàmbali mu man ko àggale man ko yaatal ba Sénégal nekk ci jàmm Sénégal jëm ci kanam parce que tàmbali na kon na àgg ci ak salaam te ñun ñëpp ñu fekk ko kenn maa ngi nuyu ñëpp maa ngi gërëm ñëpp wasalaam. merci beaucoup wala nuyu maa ngi nuyu ñëpp seen tur ak seen sant di ci jiite kilifa diine ci fi ak kilifa diine ci dëkk bi ak kilifa aada maa ngi nuyu militant yi tase yëpp. xam na ne jamono bi jot amul xat-xat am na mais teewul yéen ñëpp yéen a ngi ñëw to ñu leen nuyu leen gërëm maa ngi nuyu le camarade Abdoulaye Seydou Sow maa koy nuyu di ko gërëm di ko sant ci turi département bi parce que bi ñoo mën a jëlal kaddu ñoom ñëpp mënoon nañu wax mais ñu doy ma ne waxal seen ngor moo tax ñu def ko mais dàqu ma leen wax ñoom ñoo ma dàq wax maa leen gërëm di leen sant maa ngi nuyu Abdoulaye Seydou Sow la léegi parce que nag du maire mais fu maire yi taxaw mu taxaw fa fu ñu si loxo mu ñëw dugal ñaari loxo kon kooku gërëm ak sant lañ koy amal. ndaje lii ñu def fii tey dugal na ci loxoom bu baax a baax a baax kooku nag bëgg département bëgg région ak bëgg ndami Macky Sall moo tax mu def ko. maa ngi nuyu responsable politique yëpp ñu tase di fi jiital le coordinateur Abdou Aziz Ndiaye di nuyu le responsable euh, député Ami Ndiaye. di nuyu tous les responsables politiques di nuyu Bilal Cissé délégation conseil départemental bi jiite moom Brun ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp. Euh, collectif bi nag ñoom ñoo organisé di maire région Kaffrine collectif bi maanaam vingt cinq maire région bi ñoom ñoo ànd nekk benn jiital le camarade Yaya Sow. yaaya soow nekk njiit bu mot njiit parce que ba mu commencé jiite collectif ba léegi yombal na suñu gisee ak président yombal na li ñuy dox ci région bi lu bari ci sotti ci parce que nag damay faral di wax ne moom dafa gis njiit bu iñaanul parce que bu ko mu yem ribo baa mu yem Koungheul mais defu ko loxo moo koy dugal ci ci ci communication communication bi yëpp ci commune collectif bi kon Yaaya Sow ñu ngay gërëm di la sant bon parrainage bi dinañ ci wax parce que moo sol ndaje yi parce que dañu jëm ci ay élection coow lu ne dégg ko ci parrainage bi rajo yi ak tele yi ñii di coow Macky Sall lii la ci jublu lii la bëgg mais Macky Sall lim ci jublu mooy lu leer parrainage parrainage ci wolof du dara mooy ñu sàgg rek parce que ku ñëw ne dama bëgg a ci langue bi te motoo mbër dangay tardé langue bi rek mu ne nañ def parrainage parrainage bi nag dem leen ci militant yi buñ leen wóorul buñ ne mën ngeen nekk candidat ngeen ñëw nekk candidat buñ leen wóorul na ngeen xam ne population bi moo leen wóoruwul kon loolu defe naa tricher amu ci. sànq ne yaay nee na. Macky Sall waaw man Macky Sall laa parce que ba may ànd ak Macky APR amul APR judduwul kon su suñu waxee man damay wax ne man Macky Sall laa li ma bëgg nag euh, sama doom mu ngi ci muy Ablaye Seydou Sow muy rassembler le parti mu ngi ciy dox di animer parti bi loolu rek man moo ma ñor su ma sañoon nag ñëpp àndandoor ñu xàccendoor dóorandoor ba bu demee euh, le quatre février balaa 5 heures ñu ne oui président Macky Sall man loolu rek moom lay ñaan di sant nag sama doom sama rakk Batoor Sall parce que nag ba mu méttee fu ma geesu gis Batoor fu ma geesu gis ma Cissé fu ma geesu gis Seydou Niass ñoom it maa ngi leen di ñuy seen wàccuwaay ab Ablaye Seydou Sow nag wax dëgg yàlla ku gis nen ne nena bi parce que dañ fee nekkoon nag di liggéey ñun ñëpp mais Ablaye bi nga yegsee yaa ngi animé parti bi man awma waxu awma ku may faral ak ku may bañ a su ma gisee rek dinaa wax li ma gis nag moom laa wax parce que yaa ngi animé parti bi ku bëgg yaa ngi animé parti bi ku bañ it yaa ngi animé parti bi loolu mooy wax ci ñi ci des it nañ góorgóorlu animé ni ngay animé ñun ñëpp buñ bokkee di animé parti bi boolee suñ doole danañ gagné au premier tour li li nit ñi di wax nag ci liggéeyu Macky Sall damay bàyyi rek ñeneen ñuy wax ko parce que kenn ko nekk yaa ngi yor say bët yaa ngi xool li Macky Sall def ci réew mi yaa ngi xool li Macky Sall def ci bitim réew kon man sama càmmeñ gàcce ngalaama li muy def ñëpp ci teg seen bët li ñuy wax naan euh, loo féniti féniti rek jàkkaarloog li Macky Sall def boo ko bañee di ko xool soo ko bëggee it da ko xool kon Macky Sall yaay mënu mënu ma xam na ma koy déedéet waaw yaay càppaacoli Macky Sall yi. maa ngi tënk suñu nuyoo mën a di ko jox suñu doom yaaya saw mu seddalee ñu ko ci mairie raison bi ma ne kuy roy defe naa ne ci Kaffrine lay roy ci seen collectif bii ba loolu moo tax tey li ñu jublu mooy li ñu jublu tey mooy parrainage bi mais parrainage bi pare na pare ndax parrainage bi. bu dee région de Kaffrine mairie ñëpp taxaw te seen gox yi dañ koo gañe te ni ñu ko gañee lañ koy parrainer Macky Sall incha allah ñun ci commune bii ñu nekk commune bii ñu nekk ñu ngi fi suñuy rakk ak suñuy doom ak suñuy jabar muy jigéen ñi ak suñuy càmmiñ ànd ko ak suñu coordinateur Assis Ndiaye ma ne ànd ci ak suñuy doom yooyu yàlla jox leen tey ay cëri député muy ku mel ne Amy Ndiaye mën ñu ànd ceeg suñuy doom ñu ànd ceeg suñuy doom ànd ceeg suñuy xarit ku mel ne Yaay Ndaw Diop taxaw na fii léegi li mu wax ngeen ko mën ñu delluwaat nag ànd ak ñi nga xam ne mooy ñoo ñi nga xam ne ñoo gañe ñooñu kenn ëmpulewul ne Adama Diouf mooy conseil départemental maire yëpp ñoo àndandoo takkaw gor yu baax yi dégg ko coordination bi dégg ko département conseil département bi kon nag da yaakaar naa ne buñ ci yeggatee nañ ko defe woon rek lañ koy defee waaye nag ku ne njaag dagalim njaag njaag mooy kan kooku mooy ki yor pusoom di ñaw yor alalat di ko joxe te kenn taw koo jot ku du Macky Sall kooku mooy kan Ablaye Seydou Sow mais Ablaye Seydou Sow dafa yor pusoom ko ma ne Ablaye Seydou Sow doy na fii ci région de Kaffrine ndax li tax mu doy fi ma ne Ablaye Seydou Sow alalam du ko fekkee Ablaye Seydou Sow taam du ko fekkee Ablaye Seydou Sow mi ngi boole góor ak jigéen mag ak ndaw Ablaye Sow xamul ku ko mere xamul ku ko bëgg xamul ku ko bañ ñëpp la àndal tey pour ñu ànd pour ñu ànd liggéeyal. président Macky Sall ma ne ñun bu ñu tëddee nelaw fii ci commune Kaffrine moom pare na ko ba ba pare ma ne wootee woon suba pare nañ ma ne sas dañ koy doole waaye duñ ko wàññi ma ne bu loolu passé xam ne Macky jarul a campagne Macky Sall mooy kii dimbale jigéen ñi Macky mooy kii dimbale ndaw yi Macky mooy kii defar yi Macky Sall mooy fa fay aji néew doole yi Macky Sall mooy a jigéen ñi tollu diggante Macky Sall dama ne mag mu sonn Macky Sall moo dañ lay faj ci hôpital yi te doo joxe dara ma ne xale bu ëmb xale bu ëmb tey bay jox sa bopp ma boo ci bëggee am jafe-jafe Macky Sall fayal na la dañ lay koy soobee te doo joxe dara. yàlla bañu ma invité ndax ndaje bu mel nii ñu ñàkk laa invité. doy na waar looloo tax ma sant ci yàlla invité koo xam ne nag li koy invité yëfam la ka tax nga koy def moo ko moo tax mu tax ca côté boobee da ciy sant yàlla looloo tax ma sant yàlla ba pare nag duma ñëw yam ci invité damaa ñëw ne ci sëmbax parce que président Macky sàll jaral na ma ko may rafetlu nag taxawaayu kii nga xam ne responsable politique la responsable la boo xam ne région yu bëri soxla nañ ko muy Ablaye Seydou saw may sant aussi Yaya saw mi nga xam ne moom moo jiite collectif des maires de la région de Kaffrine di sant sama coordonnateur Abdoul Aziz Ndiaye bi nga xam ne moom moo coordonné alliance de la république fii ci région Kaffrine di nuyu tamit Yaay Ndaw Diop mi nga xam ne mooy yaayu parti bi di nuyu honorable député Adja Leyti Ndiaye di nuyu honorable au conseiller Cheikh Seyd di nuyu honorable au conseiller Adja Ñilaan Ndiaye di nuyu itamit képp ko xam ne responsable nga di góor di jigéen di mag di ndaw di nuyu euh, Bilal Cissé bu ko wootee fii ñëpp ñëw dafay wone ne président Macky Sall ñor na leen ndax veyu tabaski kenn amul fitu di organiser lu mel nii ndax ku ne am nga lu la doy waaye nag da ngeen a xam ne président Macky Sall dafa doon président boo xam ne dafa ñëw ne un Sénégal de tous un Sénégal pour tous moo la gën a xam ne région Kaffrine rek mën na koo parrainer waaye du ko def ndax dafa am slogan boo xam ne dafa ñëw ne Sénégal gu ñëpp Sénégal goo xam ne pour ñëpp la. moo tax mu tasaare ko ci région yëpp lu nekk nag lim def lim nañ ko fi waaye dafa am lu ci ëpp solo moom mooy démocratie président Macky Sall dafa xeex ba démocratie taxaw mu dikk xeexaat ba jëmmal démocratie loolu mooy li ëpp solo président Macky Sall dikk taxawal transparence gu mat sëkk wane ne dëgg rek mooy dëgg dëgg mooy njëkk mooy. fexe ba ñëpp ànd parce que ku wàññeeku rek da néewal doole parti bi. Bagna Cissé ñëwal Bador Sall ñëwal Babacar Cissé ñaaw ñëwal képp ku xam ne doomu Nganda nga nañ ñëw ànd bokk ndey ak baay xam ne Macky sàll moo soxla loolu lay woo ci biir commune Kaffrine Kaffrine nag yaakaar naa ne neex na yore Kaffrine xel dal na jigéen ñi génn nañ xale yi génn nañ Abdoulaye Seydou Sow a animé le parti Abdoulaye Seydou Sow avec son équipe dynamique ñi nga wër ñi la wër Abdoulaye boo fi nekkee boo fi nekkul ces jigéen tes hommes de confiance ils sont en train de faire un travail excellent dans la commune de Kaffrine on n'a plus peur de qui que ce soit dans la commune de Kaffrine nous défions qui dans la commune de Kaffrine l'APR est devenu le parti fort le parti incontournable ici à Kaffrine mbokk yi collectif des maires de la région de Kaffrine suma rakk suma xarit Yaya Sow jiite ko ma leen ñoom ñëpp ku ci nekk ci turam ak santam su amee lii tey ñoom ñoo ko may bi ma duggee ci parti ba tey dalal nañ ma ci jàmm jàppale ma ci jàmm foo gis Yaya gis nga Ablaye Sow donc maa ngi koy gërëm gërëm bu amul ab su ma gërëmee Yaya gërëm naa bépp maire APR bu nekk ci collectif bi dégg naa seen kàddu ñoom ñëpp kontaan naa ci lool mais aussi comme ni ko Amath na waxee du tey la ñu xamante bi ñuy politique ba tey amul benn maire bu nekk ci collectif bi te amuñu jàmm mais ngeen may ma ma beral Ousmane Ndiaye bu nga xam ni moo wax ci turu département de Kaffrine parce que nag bu ñuy xëcc ci niveau national ñun ñëpp Kaffrine région de Kaffrine la xëcc mais bu ñu ñëwee suñu région ku nekk ràcc sa département moo tax ma nuyu Ousmane Ndiaye particulièrement Ousmane Ndiaye su ma ko nuyoo nuyu naa maire yu nekk ci département de Kaffrine ngeen may ma aussi ma tudd parce que yàlla moo ko may cër muy Seet Diop muy haut conseiller parce que dafa am ay cër cër yu nga xam ne nag boo waxee gouvernement nga wax assemblée da nga wax au conseil de la république tey ci protocole d'état kilifa la ci moo tax ma seet ko ci maire yi nuyu ko mais mënoon naa jaar ku ci nekk ci turam parce que ku ci nekk am na lu ma seet ak yow am na fu ñu jaar am na luñ bokk lu nga xam mën naa koo citer particulièrement ma nuyu l'honorable député Ami Ndiaye muy suma rakk itam ñu bokk ci parti bi di xeexandoo ci parti bi ma nuyu responsable parti bi ñu ko ŋànk muy Abdou Aziz Ndiaye muy coordonnateur du parti di sama mag jàppale ma bi ma duggee ci parti ba tey mosuma gis ci moom lu ma naqari tete ma uuf ma di ma yedd ci lu baax ma ko ciy gërëm su ma tuddee Aziz war a tudd aussi nga xam ne mooy ndeyu parti bi fii muy yaay ndaw Diop mu nekk aussi militante Macky Sall comme ni mu ko waxee sànq mais aussi di ma xelal ci luy boole ñëpp ñu bokk ànd nekk benn ñooñu ñoo ŋànk parti bi ci département bi ma nuyu tamit sama jabar Adja Leyti Ndiaye bon.

kiñaan ci àddina tous les jeunes que je supporte je veux que demain qu'ils me remplacent valablement et me remplacer valablement c'est avoir une bonne formation c'est avoir une bonne ambition c'est avoir une bonne vision et savoir se battre sur le terrain des arguments moo su ma ko gisee fii man du ma naa fex lu ma neex damay ne lii neex na ma parce que damay fàttali ko mboose damay fàttaliku Cheikhou Cissé damay fàttaliku Abdou Mbose avec lesquels j'ai grandi et j'ai fait ce que j'ai à faire dans le moment associatif ici dans le ñu xam ni politique warul yàq mbokkoo ku nekk war na am sa gis-gis ak sa jëfin ak sa vision ak sa option mais il faut respecter les cadres les cadres qui nous lient Et c'est d'abord nos familles. Ensuite, il y kafrin Kaffrine. ma kontaan ci lool ci gis ci Maye Sadio moom wax dëgg naa la même bu ñagas-ñagas amee def may digal jàmm moo koy gërëm bi moo gisee fii gërëm may mun a Cissé may mun a Cissé sama jigéen la benn motif de divergence lañu am en 2008 benn rek ma def benn motif Macky Sall def parti mu ne ma day ànd ak Macky Sall ma ko man damay des ak Abdoulaye Wade kon nag bu ñu ñëwee ba bokk APR juboo war fa am moo koy gërëm itam ci teewaayam di gërëm bu baax a baax sama mag Gnilane Ndiaye au conseil de la République moom itam guddeeg bëccëg ñu ngi diisoo ci luy jëmale département bi kanam may nuyu musaa Ndiogo bi mu fi yebal te waxoon na ma aussi intendant Samba may nuyu bépp responsable bu nga xam ne toog na fi te ñu bokk liggéey bi danaa aussi sippi tudd Baye Niass Cissé suñu diggante neexu man damay wax dëgg rek te yàlla tax neexu loon te man tooñu ma ko

El Hadj Ndiaye elbow moo xam ne moo ku gis Leyti Ndiaye gis ko 2011 ñuy def meeting Toubambella ak la ministre Aliou Sow ma ne ko elbow bu kenn jaaxaan bañ perte nguur gi gis nga perte nguur ki xamut nguur mënu koo sentir bu ñu caaxaanee fii ba ñu perte nguur gi bu ñu yaakaar ni Macky Sall mooy ñàkk Macky Sall nekk na directeur général Macky Sall nekk na ministre de l'énergie Macky Sall nekk na ministre de l'intérieur Macky Sall nekk na président de l'Assemblée nationale Macky Sall nekk na premier ministre du Sénégal Macky Sall nekk na président de la République du Sénégal kooku lu muy ñàkkati conséquent tey ñun ñii topp ci ginnaawam di wut pour le département tu ko fekk foofu maa ngi dégg ay leaders yu cëppi cëppi ku ci nekk di wax mais Macky Sall du leen tontu parce que moom lu ko ñor tey mooy naka lañuy ñuy jëndee le Sénégal du sous-développement te mu ngi ci yoon wi tey ci région de Kaffrine ak lu nit mënta xas décret bu ñu def région de Kaffrine Abdoulaye Wade ak Macky Sall ñoo ko signé. ak liñ mënta wax li fi PUDC def ci programme amul benn programme depuis l'indépendance bu ko def en terme d'investissement barke démb xaw ma démb maa ngi dem Médina Salaam de Kaffrine Médina Salaam 2 defuma vingt cinq minutes il y a cinq ans il y quatre ans su may dem seeti Moussa Ali Massissé ou Ibrahima Boy danaa def juróom benni waxtu ñu ne kooku liggéey mu ñëw ci fonds politique yi mu yor mu àgg président la bi ñu jox ko ay fonds mu wàññi ko mu ne ko dama koy bokk ak samay mbokk yu ndóol mu def bourse familiale am na ñi nga xam ne ñu ngi jot bourse familiale ñu ngi koy saaga di ko xarab te teewu ñetti weer wu nekk ñu ngi pos loolu mu jox ñu itam mu jox ñu itam des raisons de croire à l'avenir am na ñu ma wax ci Kacoor gaa ñi benn campagne la leen dese mooy la route Kaffrine ngànda ma rassurer leen fii ma leen fii que le président avant le mois de décembre posera la première pierre Kaffrine Nganda et lui-même li may wax. li may wax yaayaa xam na ci dara parce que chaque jour bu ñu toog loolu la ñuy waxtaanee parce que man lépp luy développement département bi ak région bi ci loolu laay xëy te yoonu Kaffrine Nganda bi. du question sax neexal waa Nganda mais c'est un axe de développement économique et social de cette région ñun rek ñooy région wu Sénégal bu nga xam ne boo ko xoolee ci biir région bi amul un mètre de goudron le président Macky Sall va le régler parce que Kaffrine nga ne dana am mais dana continuer ba jama deuxième axe deuxième axe luy produire développement mooy ñun ñooy région bu nga xam ni amul industrie loolu itam le président Macky Sall va trouver une solution parce que ñu ñooy le cœur du bassin arachidier et dans son deuxième mandat bi muy am nii l'une des options c'est de faire la région centre Kaffrine une option industrielle du Sénégal mais qu'est-ce qu'on veut de plus pour une région qu'est-ce qu'on veut de plus pour un département xasante bi ak xarabante nekk ci réseaux sociaux di saaga bàyyi leen ñi koy def ñu continuer ko ils vont se réveiller brutalement le 24 février 2019 li des ci mbirum infrastructure de santé ñëpp gis nañ l'hôpital régional le l'étape de niveau un bi mu ko yóbbu mais aussi ça va être accompagné d'équipement ma annoncé ko fii man mi ak yaaya ñoo toog ak moom jóge fa toog ak Abdoulaye Diouf Sarr moi-même waa Diamagaajo ñu ngi fi toog seen maire a ngi fi toog bi ma demee campagne li ma gën a métti mooy l'ambulance de Diamagaajo du ma bàyyi ñu koy xarale ambulance su Diamagaajo ambulance su Kacoor le président de la république lui-même va les donner. kon foofu li nga xam ni président ambulance su Pimayo. ambulance ministre de la santé yow président ko moom te président décidé na jox kaccor jox jama gaajo Ami Ndiaye mu may xoos ne ñii bi aussi soxla na fa bon mais on verra bien mais l' essentiel engagement yi ñu am mooy d' abord kaccor ak jama gaajo li des nag ndar xëyut sotti benn par benn étape après étape ñu bëri di wax waaw Ablaye soow président moo ko ngemb moo koy jox alal muy dem Kaffrine përte përte man président joxuma tous ci micro lay wax président joxuma tous dama leen di wax rek damay bëgg parce que am na ñoo xam ne dañuy wax ci suuf man dama bëgg mu leer man je suis un homme transparent man sama alal laa ñëw bokk ko ak département de Kaffrine li ma waxoon ci campagne ba rek bu leen neexee bu leen neexee nañu génne ku nekk lim am ci banque ku nekk lim am ci banque ci responsable politique fii nañu ko génne maa ciy gën a néewle parce que ma amee altine mu jeex samedi ma wuti donc par conséquent bu ma nit wax loolu boo mënut a joxe xam nga joxe nag Abdoulaye Wade mu ne ci xol la ku mënul boo amee cent franc mënoo koo bokk kenn boo amee milliard doo ko bokk kenn c'est ça la vérité et moi je vais donner l'exemple boo bëggee ab dëkk nga dëkk fa nga yéene ko booy balaa ngay woo Macky mu ñëw defal la da ngay jox sa loxo dugal ci président Macky Sall fekk la et c'est ça ma bataille loolu loolu mooy suma xeex parce que dama jàpp ni département bi am na ay jafe-jafe yu bari jafe-jafe yu bari yu nga xam ne président Macky Sall faj na ko mais am na yu des yu des nag kenn du ñëw defaral ñu ko gis nga Yaya Sow gis nga Yaya Sow génne na ribo de l'aluminium au Sénégal ku xamuloo ribo yaa ngi wër fu ribo nekk xamul ko ko may fulla ak fayda bëgg fu dëkk bu yaayaa buggee ribo bu yaayaa buggee ribo maan tey bëgg Kaffrine waaye waaye waaye attention waxuma ni buñ fi génn buñ fi génn mukk mais ab Sow nee na candidat mairie la nekkuma candidat à rien du tout et je veux profiter de cette tribune pour régler une question ñuy wax ni Ablaye Sow moo ma boot pour ma dal ci diw ou maa ngi wàcce diw waxaluñ ma bootuma kenn pour xeex kenn yenuwuma kenn pour xeex dal ci kaw kenn mais nag kuñ bëgg a sànni ma fori kuñ bëgg a ma fori mais xeexuma kenn parce que dama bëgg a waaw arrêté may leen na ma wax ba pare nañ bàyyi affaire yu perturbation yi en prie parce que de euh, yaayaa def ma may occasion yaayaa ak Ousmane Ndiaye dañ ma may occasion ma leeral parce que politique bi dafa am ñu dul wax dëgg mukk man nag dama cee jaamu yàlla amul kenn kuy am ma lay wax lu dëgg benn bootuma kenn pour mu dal ci kaw kenn ñaar amul benn maire bu may folli oubien bu may fal trois amul benn président conseil départemental bu may xeex man ambition Ablaye Sow du conseil départemental je vois plus loin que ça pour Kaffrine et pour le Sénégal donc ku duma loolu ku ma waxal ne ma laay mooma ngemb yaa ngi nax sa bopp naxuma ngembuma kenn parce que man mi sax ngembuma benn mbër laa mooy Macky moom laa ngemb donc sur ça il faut que saa soit clair waaye nag ci politique lañ nekk yaayaa ma bëgg naa la ab man ndaw ne ma bëgg naa la moo jeg ne ma bëgg naa la man tam ma ne maa tey bëgg leen c'est simple que ça mais bu ñu néew naxante mais suñu buggee parti bi taxaw comme ni ko Aziz waxee te appelu Aziz bi dooy na ma ci appel mooy nañu booloo ñu nekk benn man duma ma digal du digal nit lu ma dul def du ma ñëw ci biir commune Kaffrine ma jox loxo Ablaye Wilane ñuy liggéey ma ne Babacar Cissé ak Baye Niass Cissé xeex leen du ma ko def ma profité nuyu Babacar Cissé sama xarit la kenn mënu ci dara ñoo bokkoon école màggandoo bi may ñëw ci parti bi ma fekk ko ci mu may jàppale mais duma ko wax mukk Babacar Cissé xeexal say mbokk dalal sa kaw mbokk maa ngi koy félicité di ko remercier ci li ma jàppale may félicité di remercier sama rak Bator Sall mu nekk aussi mu nekk aussi une pionière du parti fépp fu mu mënta nekk su ma ko oowee mu wuy si ma mais bëgg naa Bator Baye ak sama xarit sama rakk Babacar Cissé ñu ànd nekk benn comme man ni ma jéeme ànd ak wilante bokkuñu parti bu jaree talleeku nërmeelu pour ñu dëgg suñu kaw bopp yi pour que Macky Sall falu nañ ko def parce que nag nañu moytu de ñu àndoon ak Abdoulaye Wade ñu ngi fi bi Abdoulaye Wade daanoo tumuranke lool mhm. ñi ci xamuloon Macky Sall tumuranke lool nañu moytu nag tumuranke googu mooy commencé ko par le parrainage ma ñëwaat ci élection yi fii ci département de Kaffrine yaaya dina ñëw ci région bi wax dëgg ndam loolu ñu jëm Kaffrine waru cee néew doole gis nga président bu fi romb Kaffrine jàppale na ko te liñ ci gis ak néew ci retour d'investissement mais bii du demee noonu li tax ñuy xeex ak gor yu fi nekk te fii ñi fi toog amul kenn ku nga xam ne maa la ëpp fulla man le pari que je fais avec les Kaffrinois mooy nañu góorgóorlu ñu ñëpp ñu nekk benn bopp ñu nekk benn say ñu jox ko Macky Sall le 25 février le 24 mu falu le 25 mu dégg ñu tous les responsables de Kaffrine ensemble exiger la part de Kaffrine dans l'identité nationale. maa ngi wax ak sama rak sama xarit Momar Talla Cissé dama ko ne Momar mu ne ma waaw ma ne ko suñu xeex ak ñoom Mamadou Camara ak tous les cadres du département. mooy que Kaffrine retrouve sa place dans l'identité nationale identité nationale c'est une politique c'est une vision c'est une démarche et en ce sens nous devrons mobiliser nos forces derrière Macky Sall pour que Macky Sall une fois réélu donne plus de poids plus de considération à la région et au département de Kaffrine et cela passera par la voie de l'unité cette unité que nous avons retrouvée dans le département de Kaffrine et dans la région. Cette unité pour laquelle nous travaillons tous les jours. Il y aura toujours des difficultés pour se retrouver totalement. Mais ces difficultés-là, chacun d'entre nous fera l'effort pour surmonter parce que le défi de réélire Macky vaut tous les combats. Et l'enjeu, ce n'est pas autre chose c'est la stabilité de notre pays les réélire à mon avis Macky Sall c'est assurer la stabilité de notre pays on ne peut pas confier un pays à des aventuriers un pays à des gens qui dans leur CV n'ont été qu'inspecteurs des impôts radiés on ne peut pas confier un pays à un homme qui jusqu'à présent peine à justifier les 45 milliards des chantiers de Thiès On ne peut pas aussi confier un pays à quelqu'un qui ne sait pas, qui confond la caisse d'avance et sa caisse personnelle. On ne peut pas aussi confier un pays à des aventuriers. L'homme qui est sûr et qui nous rassure, c'est incontestablement le président Macky Sall. a gàttal suñu animation danañ ko continuer avec d' autres ñu may ma ma gërëm maa ngi ko naroon fàtte Seynabou Seynabou Ball ca Malem te le maire Abdou Ndaw invité ci collectif des maires boolewaale waale ma ci raxaale ma ci tuuti danañ lu dem ba foofu moo tax du ñu mën a développer sur yenn action programmatique yu ñu bëgg a développer li des nag journaliste yi danaa ci ñëwaat mais mënu leen ma wax loo fii wolof loo nga xam ne wax naa ko français ba pare li ma wax ci français lañ ma bëgg ma wax ko tuuti ci wolof. dama jàpp ni ñun département de Kaffrine ak collectif régional des maires bi nga xam ne yaayam moo ko jotee mu may ma occasion bii tey occasion bu nga xam ne mosuma ko am ñun ñëpp tey lu ñuy suñu yéene booloo nekk benn xeex. ngir lii fal Macky Sall ñun ñu ëpp ci doole Macky Sall dañoo jàpp ni du Macky Sall neex nañu oubien Macky suñu mbokk la oubien Macky président la oubien Macky Sall nii la nii non li tax ñu jàppale ko mooy lu mu commencé liggéey ci bourse familiale ci couverture maladie universelle ci yoon yu PUDC commencé fii ci département bi ak ci région bi ci moulin à mille yu mu commencé di joxe te am yeneen yu nga xam dana ko joxe waat ci investissement yu nga xam ne structurant yu mu engagé dans le département et dans la région am yu des nag mais yu des àddina ndar xewit sotti li ma wóor mooy yi moom laa yaakaar moom laa wóolu li ma ko gëm parce que li mu commencé liggéey mais aussi dama ko gëm parce que ñi nekk en face di wax Macky Sall kenn du ko dëdëgle ak inspecteur impôt bu ñu dàq inspecteur impo bu ñu dàq mënul nekk CV fii ku ci nekk am nga jaar-jaar ci réew mi bëgg a saaga xaste du bilan du programme Macky Sall duñ ko jaawale ak ki nga xam ni fukki at a ngi nii waxuñu ba tey 45 milliards chantier de Thiès fu mu jaar Macky Sall duñ ko jaawale ak ki nga xam ni. dafay jaawatle caisse d'avance bu mairie ak poosu boppam kon nag entre Macky et les autres luy tubaab di wax y a pas photo nag tànneef bi benn la muy Macky Sall ci élection yi ñu jàll Kaffrine amoon na 62 pour cent ñu bëgg bii élection di ñëw xanaa kay waa Kaffrine ñu jox wil Abdoulaye Wilane ñu jox Ami ci député ñu jox ko 62 pour cent te Ami Ndiaye ak Abdoulaye Wilane yëpp Macky la leen boot Macky Sall ne leen léegi soxla naa ñaata ngeen koy jox ah dama dégguma dara non 100 pour cent ëpp na ah. au moins au dem quatre vingt pour cent au moins ñu dem quatre pour cent loolu laa bëggoon jeexale gërëm aussi éleveurs yi sama mbokk bandiraabe ay naabe e bandiraɓe halfulaɓe fof on jarama mais aussi transporteur yu nga xam ni ñi nekk ci gaaru ceer yi nekk fii baax nañu lool ndaxte Kaffrine ci région bi moo doon jël ndaaree toujours bi pa ñoo jël deuxième derrière Malem kon am na liggéey bi fi am mais liggéey boobu doyut Kaffrine mooy troisième région après Matam après Fatick ñu bëgg ci parrainage bi Kaffrine jël ci premier bu ci Kaffrine jëlee premier ci parenage bi ak ci élection président Macky Sall falu ñu ne ko président mu xool ñu ne ko suñu wàll pour le département et pour la région de Kaffrine parce que balaa nga ne naam ne fa man ruus naa ci commune Kaffrine ma perdre élection may dem conseil départemental di dem président de la république di ko tàllal loxo di ko ne may ma moo tax ma bëgg d'abord dans la commune ensuite dans le département ñëpp taxaw pour qu'on gagne on gagne pour faire de Macky notre allié dans le développement de la région et du département de Kaffrine c'est ça le défi fii ba 24 février bu kenn noppalu bu ñu xoolee suñu résultat yi kàccot 4562 lañ fa amoon ki ci topp mu ngi am 400 voix xam nga foofu wax ji jeex na mais damay bëgg le maire El Hadj Cheikh ak mon grand frère et ami Cheikh Wilane te wax dëgg yàlla joxante nañ loxo aussi ci kàccot exemple boobu ñu def ci kàccot département bi yëpp def ko ba 400 voix yi fa gars yi amoon ñu am fa zéro voix. mën nañ citer noonu ba àgg ci suuf ci parrainage bi ñu jëm président dafa ne Kaffrine amoon naa fa 5600 voix mais bëgg naa ci parrainage bi ngeen dajale militant ba mu toll ci 8100 électeurs mooy juróom-ñetti junni ak téeméer liggéey boobu nag liggéeyu parti bi yëpp la tey ci biir commune nu Kaffrine. ñun waa APR dajale nañu sept mille cent sept mille cent cinquante yoo xam ne ñoo ngi ko téye suñu loxo bu ci PS indee wàllam AFP indi ci wàllam LDR Yeesal bu Fada indi ci wàllam foog naa ne danañ àgg dix mille parce que loolu mooy suñu objectif mais électeur yu honnête ku képp ki ñu bind mu wóor ñu ni Macky Sall la àndal pour ku bëgg 1000 francs ou bien 2000 francs mën nga ko am teel ne Macky Sall la àndal man de wallaahi amul kenn koy ñëw dis ma soxla may xool fan parti la far donc buñ naxante ci mbir mi te lii musul am ci Sénégal moo tax ku ci nekk war a moytu boo demee ci Idda Mouride nga dëkk fa ama ndaw oola ne man signal ma fii nga signal ko am sa beneen mbokk xam nga ndaw ku ndaay dañu woyof bopp sauf sama jabar ñu am benn mbokk rek buy ànd ak Idrissa ñu ne ko bàyyi rek ma dimbali ko mbokk la rek ma signal ko yaa ngi lor sa bopp parce que signal nga Idrissa signal nga Macky su loolu day àgg ba ci kaw ci ndakaaru bu àggee tribunal ba def lay convoqué te bu lay convoqué doo ñëwee ni nga bëggee kon lu ko fi jàpp li am ba am solo mooy ku ci nekk ci ñun am na responsable balaa ngay signé dara waxal ak sa responsable loolu mooy moo d'ordre bi balaa ngay signé dara na nga wax ak sa responsable soo waxee ak sa responsable bu la nee signé nga signé bu la nee bul signé bul signé buñ ci naxante buñ ci foow buñ ci caaxaan fii nag ba le 24 février danañu continuer suñu travail d'animation et de mobilisation du parti avec toutes les forces du parti du ñu xeeb kenn du ñu bàyyi kenn ñu joxante loxo ñun ñëpp parce que la victoire de Macky Sall c'est la victoire de chacun d'entre nous ku ci nekk ci responsable yu ci nekk fii ci tribune bi ak ñi fi ñëwul président seq na yow lu nga xam ne yow rek la seqal kon nag bu président soxlaa ñu war a bàyyi suñu coow yëpp de war a bàyyi histoire yëpp de comme ni ko Mbirkelane defee comme ni ko Koungheul defee comme ni ko Malem defee waa Kaffrine ànd nekk benn mais tey collectif des maire la collectif des maires nag du ñëpp ci bokk 33 maire ñoo ci mën a nekk ci 33 yi cinq yi ñu ngi bokk collectif di doxal collectivité des banqaas la ci biir parti bi bu parti bi jotee nag ñu booloo ñu ñëpp ñu nekk benn di xàccandoo di doorandoo may renouveler responsable yi fi nekk yépp ak ñi fi nekkul Ablaye Sow de kenn du ko gis ci luy yàq Ablaye Sow de kenn du ko gis ci luy tasaare mbooloo makisal Sall famille wu ndaxte nag famille yu Macky Sall dama leen fekk ñu ànd nekk benn ma fekk leen ma gisaal defal ma ci lu nga xam ne defaloo ko kenn su ma goree nangul leen déglu leen nekk seen ginnaaw. et personne.